tous les internautes euh, d'Equivox TV mi ngi noonu dellusiwaat ngeen fii si seen plateau JDA ku wax JDA nag mooy émission bi ngeen taamu tous les jours ànd si ak Babacar rek sama góor bu baax bi Babacar comment tu vas. rahmatulahi alhamdulilah. alhamdulilah naka sa week-end. waa sant nañ yàlla bu baax a baax sant yàlla bu baax a julli ci sangu-sang yi sallallahu alayhi wa i ah di ñaanal Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm def ko si àddina bi. waaye di ñaanal di ñaanal yi. Mhm. soppe yi mhm. xar yi ak ñi bàyyi xel mhm. aussitôt di ñaanal bépp doomu aadama xam ne rek yaa ngi si dëkk bi wala si réew mi wala foo mën a nekk rek si àddina bi waaw di nuyu téléspectateurs yi ak internautes yi macha allah mi ngi mhm. noonu mais Babacar arène bi yëngu na bien sûr waaye na parce olof dafay wax lu yëngu la ko yëngal la doole dëgg la yaa ngi dégg te euh, dafay am loo xam ne su amee faw yëngu-yëngu am. dëgg la parce que démb <laughs> waaw <laughs> moo lay bàyyi nag nga ciy xuus rek ah. Mm-hmm, mm-hmm. damay bàyyi ñu suñu mbokk internet yi ñu dem seetaan loolu nga xamante ne mooy yëglekaay dikkaat ci plateau bi. am na solo. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. lundi 6 décembre 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag moo xam sunu làmb la moo xam record la moo xam fa nga xam ne moo di Equivox TV la li TV ba ca fu mu ci mën a doon rek fépp foo xam ne daal làmb ñu ngi ko fay wax tey wala yëglikaay bu mën a doon tey dal maanaam la am li wax lu def waxu lu njàmbat loolu la ñu xëy tey dikkal ñu ci parce que nag démb ku ne xam na ne addina bi yépp képp kuy dund làmb yëgoon nga ne Papa Sow ak Siteu démb waroon nañu bëri ca fa nga xam ne moo doon arène nationale Pape Abdou Fall jaar fa maanaam làmb jay neex di neex di neex di neex yegg ca fa nga xam ne nag maanaam mooy finition ba ñaari mbër yi war a bëri nag maanaam am lu ca ne cabax mel ni mbër ma ñu gaañ ko muy Papa Sow moo tax yëglikaay ba xëy tey wan ñu gaañu gaañu boo xam ne bu méttee métti la maanaam daal wet ga nga xam ne ni daal mooy wetu ndeyjoor ga moo toj dara ja daal di koy sang moo tax yëglikaay ba nag ne boo bëggee dégg-dëgg combat bi daal combat wu gàcce la ko sunu làmb tudde moo tax yëglikaay bi nag nee na maanaam daal démb verdict ba daal ah maanaam sa verdict daal moo fa am la ko waral nag mooy dara ju bari joo xam ne daal xaa am na ko wala am xaañu-xaañu daal na ca ka nga xam ne moo di Papa Sow ba tey yëglekaay ba mu nga xëy tey di wax mu mel ni ki nag ña nga xam ne nii daal wala boog boppu Papa Sow ba wala jëba la ko toj am ndënd daal la nu yëglekaay ba wax ne moom la nu ko dóor jëba daal di toj ba tey moom yëglekaay ba mu ngi nuy waxal daal di nu xamal ne Siteu mu waroon a bëri ak Papa Sow la mu jàpp moom moom ka mu accusé du kenn ku dul Papa Sow na li am lépp démb du kenn ku dul Papa moo def moo dindi ndax nag moo dabee ñu xaañ ko kon daal moom daal di jàpp ne daal lamb ji Papa Sow moo ko yàq Siteu nag moo wax loolu sama ay wax mu nga ca sunu lamb Malick Thiandoum moom la mu xëy xam ne daal nee na CNG bi ci wàllu boppam ñoom ñoo war a nag jël seen ay matukaay li lijjanti mbir yi ndax nag buñ ko lijjantiwul leneen loo xam ne lu gën a garaaw lii sax man na fay am Tafa Gueye 2 moom nee na lii nekkul loo xam ne wala boog Tafa Gueye numéro un tigre de Fass nee na lii kenn waru koo toléré nee na baale ko wala di ko xalaat sax nee na dul war a mën a nekk Sitor Ndour ma nga xam ne tamit arbitre ya xam ne ñoo ca lamb ji di mu waroon a arbitré combat ya moom mu bokk ca daal moom la nga xam ne ba mu ba ba mbir ma demee noona journaliste dégg ko micro Sitor la mu xam ne na combat sans verdict moo fi am maanaam kenn du ñibbee ndam kenn du yóbbu dam ñoom ñaar ñooy yem ca combat ba mu mel ni ki nag waxi Sitor jooja père Max Mbargane kontaanu ca moom ma nga xam ne moo réécrit lam sarr di manager Siteu nee na li am ba des daal na gars yi li ñu def wala arbitre ya teguñu ko fenn ndax daa jàpp ne ndam la moom kan ko waroon a moo di Siteu ndax Siteu père Max daa jàpp ne moom xaañewut xulewul te pare woon na ngir bëre kon ndamam dan ko ko waroon a jox ka nga xam ne nii moom ndamam coow amu ci jël na ko mooy kaaw gourdin bërki démb bala balaa dimanche samedi ji journée jax ba mook caat Daouda Fall yëglikaay bi ne na Kaw Gourdin moo caat Daouda da a dóor a dóor ba xamatul fu mu nekk mu door koo daan jël bu rëy ba nga xam ne na ko ko yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne suñu lamb wax bi nga xam ne moo war a dox ci diggante rëg-rëg ak ka nga xam ne nii moom moo di guy ñuy wax nag report daa mel ni nag dàq goog ñu ko bëgg a dàq moom waa kër rëg-rëg ne nañ tey du ca dal suba waxi noppi ñoom daal lànk kandaare lanu def record itam ñëw na comme dama leen ko waxee woon sànq rek ci mbirum Papa Sow ak ka nga xam ne nii moo di Siteu waaye daa mel ni wax ja benn rek ña nga xam ne ni daal ñoom ñoo di waa kër daal boo bëggee dégg-dégg wax nañu ñoom daal Papa la ñu accusé waaye Papa nag moom jamono dañ koy accusé ba mu jógee ca làmb ja directement hôpital la def yëgle kaay ba mu moo xëy ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu ba tey boo demee Equivox Jili Seck mu ngi fay xëy di xam ne daal nee na du man maa dóor Papa Sow am ndënd nee na dóoruma ko ko tey suba waxi noppi te Jili na Papa Sow la ma bëggoon a def bu ma amoon lu gën a dis avion wala ndënd sax dama ko koy yen waaye nag du man maa ko dóor kenn koo xam ne nii moom tey woonan ko ndax combat bu rëy la tëgg muy Luc Nicolaï yëglikaay bi ne nag boo bëggee dégg-dëgg diggante moo doog Ama promoteur bi di Luc Nicolaï tey waa CNC convoqué nañ ko ci altine ngir nag war a seq ak moom ay wax waaye loo ci mën a dégg daal démb xalaat demoon na bay neex bu mu gën a daal di tappit dagg arène nationale na mu mel démb ci ay nit animation ba tëgg ma mbër ya pare war a bëre mbir ma naax saay kon gars yi est ñu xoolaat suñu bopp ndax nag ah doy na waar de te ku xamul fa nga jëm boo xamatul fa ngay dem est-ce que doo dëpp ramatulaay dellu fa nga jógewul woon naa loolu mu lay dimbali Babacar seetaan nañ loolu nga xamante ne mooy yëglekaay yi ah. Mhm. mi ngi noonu tey daal suñu lamb dañoo xëyee làmb boobu nga xamante ne instant bi tous les journées moom la ñuy waxtaanee. Mhm. Euh, entre euh, Siteu Papa Sow. Mhm. combat de la honte. un sang verdict. dans un bain de sang. waaw combat bu nga xam ne Ramatoulaye wax dëgg yàlla démb. waxuma sax ku demul woon làmb ji ah, mais boo seetaan image yi wala nga seetaan li mm. nit ñi ni ñëwee en masse sa xool du neex parce que tax mooy dafa nekk loo xam ne lu métte métti la mm-hmm. parce que tamit combat la woon bu nga xam ne am na ñaari ñu togg ko promoteur bi taxawal ko coronavirus ñëw saa yu après coronavirus bi ñu duggaat ñu demee ba ñu jàppal ko ay date war ko bëree. après ñu dàqaat ko mu nekk lu yàgg. métti mhm. ci ñaari mbër yi lool parce que mbër boo ko joxee avance tey muy préparé combat plus deux ans mënu ko bëre. xam nga li nga ko joxoon lépp jeex na. Mhm. day wuti ay xaalis ñi koy jàppale ak yooyu. Mhm. mu kon métti woon na trop promoteur bi tamit jël xaalisam jox leen moom tamit métti la ñuy wax te maanaam jëf joo xam ne ah ak lu mën a xew rek du jëf ju nga xam ne ju kenn mën a rafetlu la. ndax nit moom euh, tuur deretam mhm. du du rafet. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. mais làmb nag dafa bëri lu ci laxasuloo xam ne enjeu yoo xam ne ñooy yu ciy nekk yoo xam ne nii ah tax na daal. ba li may wax mooy di ko wax waa làmb mhm. nañu xoolaat suñu bopp parce que làmb souvent yomb nañ ko di mhm. tuumaal mhm. di ko teg ay tuuma te sax tuumaal tax ndax tamit lu ne fàng la kenn du ko jeex ndax li nga gis nii ci kanam Papa Sow lu maanaam dañ ko xañ dañ ko gaañ amoon na fi ay combat yu fi amoon Alioune Seye 2 ak ñaq jariñu bu yàggul passé na fi lu mel nii moo tax combat kere amul. Garga Mbossé ak Lac Rose bëri waroon nañu bëri Demba jub lu mel ni moo taxoon amul. Mhm. kon seen yi yàgg nay am ci làmb. Mhm. léegi nag seen il est l'heure que ñoom ñu jël seen ay mesures. Mm. yaa ngi dégg. Mm. teg mbir yi fi ñu ko war a teg. ku ci ne ci làmb ji la nga moom ñu jox la ko ci biir làmb ji. Mm. parce que loolu mooy tax li war a am muy jàmm ji mën a am. yaa ngi dégg mais. Euh, Papa Sow mi ngem bu bëre si. Mm. pour bëre moo ko andi woon. Siteu bëre moo ko andi woon. Mm-hmm. te ñoom ñaar pare woon nañ pour war a dugg ci géej bi ndax xam boobu kese moo desoon. dëgg la dëgg la kooku di eh, kii euh, Siteu sax dégg naa muy naan euh, jël na trois ans pour préparer lamb ji. waaw parce que ji moo yàgg. lamb ji mm-hmm. dafa yàgg. dafa yàgg loolu Siteu wax am na ñoom ñaar ñëpp ku ci ne. ba ngay mm-hmm. pare combat beeg léegi daa yàgg. yàgg na lool. ay at la def kon vraiment leen metti na ci ñoom. metti na trop ci ñoom metti na waaye tamit. gën na metti ci ñi nga xam ne nii. ñoom ñooy. Euh, amateuru làmb yi. ñu dagg seen bii ñëw démb ci arène bi. Mhm. bëri nañ trop arène nationale fees dell baron. Mhm. ak arène bi ni mu bëree place. Mhm. ñu ne déet na waaye ñu jaay ay cote ay sénégalais yu nekk fii Sénégal jënd ay cote. am ñu nekk diaspora jënd ay cote ndax man am na ñoo xam ne man leen jëndal ay cote. parce que dañ ma yónnee xaalis ne ma xamuñ kii naa leen jëndal ñu nekk ba bitim réew ñàkk noonu seen ay mbir kon il est l'heure que ñu ne ci làmb mhm. xam nga nit ki olof daf ne bu ñu lay nji ndëmb mm. ah mm. fekk la ngay soccoo yeele gune ku lay setal ñun nañ jéem a soto suñu bopp mhm. nañ jéem a setal suñu bopp. xam ne ñoo bokk Sénégal c'était choquant non image yu choquant image yu choquant parce que lii euh, dafa raglu ci bët sax ces enfants qui sont derrière. non vraiment ñoo ngi seetaan combat bi ah. affaire bi métti woon na et aussi euh, gis nañ ni kii di Papa li ko taxoon a jug bëre la. Mhm. ainsi que Siteu mais après sax gis nañ Siteu dafa toog di wax comme si lu mu doon wax xol xol la doon waxee. waaw ouais, parce, que il disait que il a dépensé plus de vingt millions pour préparer combat bi lu tax waa CNG joxuñu ko loolu nga xamante ne mooy victoire am. waaw parce que ah, moom la muy wax wala na muy la ko tax di wax mooy. Mhm. moom gis na ne moom du moom moo gaañaate gis na ne moom pare na pour bëri ñëw na remplir na contrat mhm. yaa ngi dégg. Mhm. Papa Sow tamit pare woon na pour bëri ñëw na remplir na contrat am. kon bu jàppee na Papa Sow gaañ nañ ko gaañ boo xam ne nii. ah ci biir làmb ji la te moom jógewut ci moom balaa ñoo bëri moom mhm. xëy na moom moo tax mu ne kon moom moom la ñu waroon jox victoire xëy na lool moo tax muy wax mais loolu nag ñun ñu ci mën a wax mooy loolu mhm. ay texte moo koy définir Mm. waa CNC. ñoom ñooy xam si te am na manager am na encadrement. administratif ak technique ñoom nag ñoom ñooy topp kaaba ba xam ndax lii nii am est ce que bi noonu la war a demee. Mm-hmm. ndax moom la war a joxe fi tuuti a doon. Mm-hmm. loo xam ne ne ñoom ñooy acte. Mm-hmm. ñoom ñooy xool ndax a mujj. wala dañu war a yëkkati loxo Siteu wala dañu war a jox Papa Sow victoire. wala ku ñu war a jox victoire loolu du Babacar koy wax mais CNC bi yore làmb ji teg règlement yi dénk leen ko ñoom ñooy jël seen ñooy am courage wu jël seen ay décision def li nga xam ne ni moom la ñu war a appliquer ci combat bi parce que bi doy na waar Sénégal yi doy na waar Babacar combat bi démb dafa touché seulement lamb ji mais aussi touché na population bi parce que au delà de combat bi sax après ça y des agressions ak yeneen ak yeneen da nga daan toog sa kër nga jot message boo xamante ne ils te disent carrément que na nga moytu yoonu Pikine bi ak beneen ak beneen ah noo non jàngatee loolu. waaw xam nga agression moom. Mhm. li ma la wax rek xam nga lamb bu jotee. Mhm. li ma waxoon naa la ko fii keroog naa la événement bu jot ngay rax am ca. ñu ci bokkul dugg ci di ci profité waale su ko defee ñu jël mbir ma taf ko ci événement bi làmb nag da cee gën a bërile da cee gën a weexle donc bokk politiciens yi bu saabu ñu wootee ñu fay jógee si seeni portable jël nañ ko kenn du xam nu mu toll boo demee sa yeneen maanaam wootee religion ya même chose da nga fay gis ay sàcc ak ay ay yu mel noonu agression bi bëri na ci dëkk bi. yaa ngi dégg même bu dul làmb sax. Mm. dañuy dab nit ñi des fois nga dugg ci ay coin yoo xam ne boo fa wéetee bu ñu ay ponkal fekk la fa. du mën a naa dañoo dem ba policiers yi mënatuñu. yaa dégg kon démb làmb ju mel noonu. ak mm. mbooloo ma fa daje ak démb man mi doon man bi ma déparé fii laa déparé jëmaare mais pour nga dugg ci arène bi sax sa tout un problème. Mhm. kon mbooloo mu toon bu dajee nag am na ay nit yi nga xam ne ay mal intentionnel la ñu mel ni man ay malfaiteur mhm. ci la ñuy profité wala ñoom tamit di defar seen affaire parce que am na ñoo xam ne sàcc la ñu fas di dundee mhm. am na ñu mel noonu jël lu ñu moomul ñooñ nag bés yu mel ni daleen di dimbali da leen ki nga xam ne yow dara xewul te bu dajee ak yow ramatulaay nga war sa saak mu mbaj la que ci sa greffage wala sa cheveux wala mu nangu sa téléphone kooku bu événement amee kay danaan ça fait location dama ciy profité wàll waaye du du jëfi du jëfi nit du jëfi nit nañuy jéem a jëf jëfi nit ginnaaw bi ñu nekkee ay nit jéem a yor xelu nit mhm. loolu dafa ñuy dimbali ci li ñuy maanaam ci suñu dundu waaw voilà euh, démb kii kii di euh, site aussi ñaawlu na la fekk euh, pare que amoon na benn combat moom ak guy gi malgré qu'il était blessé mais malgré ça bëri na bëri na combat bi ba après xaw victoire bi fan la mujj. waaw mais mm-hmm. mais te démb gisoon nañ ay gaañ-gaañ ci kanamu ko nga xamante ne mooy site ñu mujjee annulé combat bi moom on dirait que une sorte de discrimination la gis. waaw xam nga ko maam ak guy gi kera gaañu gaañu am na fa parce que. Mm. bi muy dugg ci la ci jàppante am. Mm. sànni ay xeer am. Mm. ñu xaañ ko loolu amoon na. mais biñ ko xaañ si bopp. boo xoolee boobu euh, tuusagul sax boobu day dugg si ci làmb làmb ji. yaa ngi dégg. kon moment boobu sore na am na écart ak fi mu war a bëree ci ay temps de waxtu wala ay minutes. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. nëbb na gaañu gaañoom ba bëree. ba ñàkk combat am loolu moom dal na ko mhm. yaa dégg waaye est-ce que gaañu gaañu Papa Sow bii mhm. lees mënoon na nëbb démb la mhm. par rapport fi mu ko dal maanaam fi mu dal fii ci jë deret ji wër la loolu mooy wax ji Siteu moom ci gaañu gaañu nag du ma xeebal kenn sa gaañu. maanaam c'est tu veux dire que gaañ gaañ yi c'est différent. waaw parce que parce que xam nga tey boo amee karaw des fois mën nga xaañu. dëgg euh, du du du kii deret bi du feeñ. Mhm. mais ci jë olof da ne euh, lu ne fang kenn du ko jeex. te jë da ne fang. maanaam li dal Papa Sow ci jëla ko dal. bi mu ko dalee nag gaañu gaañu bi yaatu na deret di sang ko. Mhm. ak boobu yaramam tàng na. xam mhm. nga loolu fu mu tourné nii set deret yi la ñuy gisati. loolu moo ci nekk waaye encore fois rek. Siteu yéenewul Papa Sow lu bon. Mm. loolu laa jàpp. te defe naa loolu moo am Papa Sow yéenewul Siteu lu bon. Mm-hmm. bëree leen boole woon. Mm-hmm. ñoom ñaar boo déggee dina combat bi ak bu ñuy waxante waxee làmb bi respect da nga koy gis seen diggante. Mm-hmm, kon defe naa rek. olof li muy wax rek nañ sa rafetal soow mi duggee ko marché. voilà c'est ça et aussi il est il est il est euh, important ce que ñu defay enquêtant ba xam nu mu fa demee noonu parce que imagine Babacar public bu nekkoon ci ci ci ci. ci kii bi yëpp ci stade bi yëpp. Mm. ak ñeneen ak ñoo xamante ne ñoo ngi toog si ginnaaw seen kër di seetaan combat bi xaar ñu woon dara lu dul jàkkaarloo kooku nga xamante ne mooy Papa Sow ak Siteu benn nit ju yëfee rek yàq. Euh, combat boobu noonu je pense que loolu loolu lu jar a jàngaat la lu jar a def ay recherche ba xam kan moo def euh, jëf yu ñëw. waaw loolu moom xam nga réew mi mu am na police am na sécurité bu doy. Mm. loolu moom Sénégal yëpp àddina yëpp xam nañ ko. Mm. léegi nag dafay des ci comme plainte dégg nañ ko ci côté Papa ah dañuy bàyyi yoon nag moo fi nekk yoon moom. Mm-hmm. Mm-hmm. mooy def ay enquête am xam xam kan mooy responsable loolu li li am. Mm-hmm. maanaam nu mu amee. lu ko indi kuy responsable bi ku ko def. nangam sangam su keroogee nag mhm. justice réew mi bu keroogee moom mooy xool nu mu cay taxawee loolu ba tey dañ koy delloowaat rek ñi nga xam ne ñoom ñoo yor yoon rek mais man li may gën a insisté ci wax rek ramatulaay mooy mhm. a ngi noonu Babacar euh, mhm. am na solo am na solo ñu bëggoon jàll ci journée Jax production. waaw avant hier. Mhm. Kawo Gourdin Assom Thiatou Daouda Fall. Kawo Gourdin ah. Kawo Gourdin man <laughs> Kawo rek laa koy wax. Kawo Kawo Gourdin <laughs> c'est ça xam nga bu toll nii yow. Kawo du mooy tonton. Mhm. voilà kon euh, kaw Gourdin xam ko. exactement <laughs> kon Kawo ñu ngi koy féliciter euh, samedi la woon avant mhm. dimanche. combat bu neex vraiment bu amateur doon xaar. yàlla daf ñu bëri bu metti xeex xeex bu metti Kawo daan ko jëlee bu rëy tamit parce Caat Daawda Fall kera xam nga mooy combat bi nga liroon fi ma ne woon kaaw mooy favori mhm. te la taxoon ma wax ko tamit daa mel ni di moom ko ma ma la a bëri loolu la joué mhm. mayu ko jàmm mhm. attaqué ko xeex ak moom tegal ko bëri mayu ko fenn fu booy bi xalaate ba daan ko jëli bu rëy bi mu ko daan te balaa mu ko daan boo xoolee dafa téye sax ci loxo bi ci galaaj gi dóor ko ay coup moo tax bi mu ko dóor ay coup booy bi man naa ne dafa kaw àdd kaw dëggu mu sotti ko bus ko. daan ko jëli bu rëy kon kaaw félicitation. Mhm. di courage ci daaw de Fall mu dem liggéeyaati. voilà mi ngi noonu mi ngi mhm. noonu. Mhm. Euh, report combat contre guy gi. Euh, le camp de regret di bi di ñett. ñett mooy bañ. bañ lànk maanaam dañoo bañ ba lànk daare. lànk ka ah. loolu daal xam naa ne ba tey li ma la wax rek. Uh-huh. comme ñoom ñoom promoteur bi ñoo signé woon contrat yi. Mm. promoteur bi jàpp na la 2 janvier dem na ba la yàgg mu dem seen seet yi ñaan pour ñu puusal ko date bi. ñoom itam waa Kër Reug Reug ne leen du ñu nangu loolu. mais lu may waxat foofu rek mooy waxtaan rek. Mm. waaw parce que promoteur ak mbër mënuñoo tàqalikoo kon nañ waxtaan ba trouver terrain d'entente mm. te fexe lépp rafet interdépendant maanaam kenn mënul dem ah, bàyyi moromam bien sûr ñooy liggéey <laughs> kon nañ waxtaan mu ngi noonu waaw mais suñuy xel parce que des fois da ngay jëfandikoo sax xol ba pare mm-hmm. sur le coup une mu passé loolu nañ ci bàyyi xel te olof ne na réccu dina fekk jëf a wees mhm. nañuy bàyyiwaat xel bu baax a baax mhm. ku mer ak loo mën a mer loo mere mere ramatulaay mm. wala abib wala mariam wala koo mën a mere def réfléchiral dalal tuuti dalal jël tuuti recul boo dee julli la sax jar na nga dem jàpp julli ñaari ràkk ngir dal ngir xalaat parce que souvent mer dina la yóbbee nga jëf-jëf joo xam ne ëllëg rëccu rek la lay jural. te mën na laa dugal foo neexul euh, sur le champ. non non non boo ko defee def def musiba te olof nee na. Mhm. kuy xuloo xuus. booy juboo da ngay tefesu. Mhm. kon nañu xamaat ne ñoo bokk Sénégal. Mhm. ñu bokk ndey bokk baay parce que li am démb ci làmb ji neexul ci xol te des fois dañ koy gis ci politique bi di ko gis feneen ak feneen. nañu xam ne xëccoo bi mën na ne. mais nañ koy def ci cadre fair play mm-hmm. bu dee sport bi la ñu def ko ci cadre fair play sportivité politique bi tamit naka noonu mm-hmm. parce que ndam ku ko fi am tamit mënoo génn réew mi mm-hmm. te bu dee loo jiite la fii nga koy jiite bu dee ndam looy feete fii nga koy feete ci réew mi moo xam foo koy feete ci Sénégal mais du génn réew mi kon encore une fois loolu laa lay wax di remercier ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel euh, Equivox yëpp mhm. rawatina li li ñuy def diggante Ramatoulaye ak Babacar muy loo xam ne tamit vraiment saf na gaa yi trop tey nag ni nga def tamit macha allah xaw ñu wax ko du mën a ñàkk waaw non xam nga Mbaye Dieye Faye maa ngi koy ziar dana woon nit bu solee lu naaj da nga koy apprécier. moo tax may apprécier tey. macha allah sa balaa am na solo. ay kontaan naa si yow et puis mhm. euh, di kontaan aussi si suñu mbokk internet yi. Mhm. mais sujet bi pareeguñ ci ah dinañ ci gën a xuus tout à l'heure ak euh, seen plateau seen Cas. Mhm. et puis euh, on vous donne rendez-vous demain incha allah.